Euh, mbokk Sénégal euh, TV euh, ba télé direct ñu ngi fii si consulat du Sénégal consulat du Sénégal nag bu Paris ñu ngi fii pour def émission ki nga xam ni mooy vice consul bi koy Acha Ñaa Aw noonu la Acha Aw nag ki nga xam ni mooy suñu nekkee ñu naan ko mooy présidente président sénégalais yi nekk Paris waaw ama ambassade bi mu ngi def liggéeyam mais consulat bi ak consul bi aussi ñu ngi def seen liggéey xam ngeen ni Adama Sall moo nekkoon fii consul général dañ ko affecté léegi promotion bu baax la mooy euh, euh, moo ko war remplacer mais avant loolu vice consul bi mooy ki nga xam ni suñu euh, jigéen la ki nga xam ni tamit xam nañ ko lool te ràññee nañ ko si liggéeyam bu muy def si parti démocratique sénégalais ak consul bi nga xam ni moo nekk fii si Paris léegi nag dañuy laaj concile parce que vice concile mooy remplacer concile su fi nekkul lan mooy concile euh, ak lan mooy liggéeyam si dëkk bi. waa maa ngi lay remercier euh, si euh, émission bi ngeen vraiment voulu organiser pour que sénégalais yi nekk ci France nekk au niveau de la diaspora war a mën a xam aussi yëngu-yëngu bi ñuy yëngu fii pour jàppale sénégalais yi consulat nag bu amee ci dëkk. Euh, maanaam c'est pour euh, defar euh, di régler problème administratif u sénégalais yi nekk ci dëkk boobu donc maanaam problème yi passeport problème u état civil des problèmes d'ordre familial wala euh, des problèmes d'allocation familiale donc ñun nag Paris ni ñu structuré consulat bi y a plusieurs services am na chancellerie ñëpp xam nañ ne fii la ñuy déposer passeport am na état civil am na sénégalais yu bëgg sëy entre ñoom bu ñu bëggee sëy ñëw seet señu euh, ñu xool nu ñu leen di defalee seen publication de ban ba yàlla def ñu sëy euh, defal leen mariage am na également sénégalais yuy am jafe-jafe parce que xam nga dëkk boo fi ñëwee euh, nekk te xam ne du sa dëkk amuloo fi ay mbokk du ñàkk nga am jafe-jafe boo amee jafe-jafe ci yenn yi mën nga ñëw wala dans le cadre de ta famille nga ñëw gis sunu assistante sociale mu jéem la xalaatal xelal euh, jéem la wax noo mën a jaare de telle sorte que vraiment ñu mën a apporter assistance à nos compatriotes yi fi nekk euh, rôle social bi nag da ci am solo Euh, généralement euh, dans un consulat euh, vice consul bi mooy gérer rôle social bi te rôle social bi regroupé na allocation familiale parce que xam nga fii travailleurs yu bari dañuy liggéey waaye seeni i jabar ak seeni doom ñu ngi dëkk ba donc vu que nag France ak Sénégal dañu signé convention boo xamante ne sénégalais yi dinañ mën a ñi seen doom yi nekk Sénégal dinañ mën a fayeeku allocation familiale ñun ñooy gérer dossier boobu y a aussi également euh, les reconduites à la frontière loo xamante ne metti na torop waaye xam nga dëkk bu nekk tamit dafa am législation euh, WAM en termes d'immigration où il y a également il y a également euh, jafe-jafe yoo xamante ne si am na sénégalais yu ñëw fii foog ne France Eldorado la France lépp fi am euh, ñu ñëw aussi fii du ñu am kër euh, wala du ñu am fu ñu dem wala seen mbokk yi jëlee leen seen kër ñooñu tamit dañuy xool avec association ak structure yi nekk fii nu ngi leen di dimbalee ba ñu mën a vraiment seen jafe-jafe yooyu ñu am yàlla mën ci def sutura ñu mën a vraiment nekk fii si condition yu baax donc vraiment rôle consulat ni ma ko mën a waxee daal mooy assister sénégalais bi defe ko nu mu ko war a waree pour administrativement mu bañ a am problème ci kayit yi et vraiment socialement aide buñ ko mën a apporter ñu apporter ko. Ah, dañuy de jiiñ ne da ngeen di signer ay sauf-conduit pour sénégalais yi nga xam ne ay clandestins lañ bu ñu leen jàppee pour ñu ñëwee fii policiers yi dañu leen signer ñu delloo leen Sénégal loolu si mën a leeral. waaw xam nga loolu c'est simpliste de le dire parce que ñun ñëpp sénégalais lañu te kër gu nekk am na ko immigré donc bu sénégalais yu waxee loolu wala kenn wax loolu ñàkk xam la. Euh, parce que il faut savoir que comme ni ma ko waxee tout à l'heure si rooru consulat dëkk bu nekk dafa am législation Euh, boo ñëwee ci dëkk ñëpp di doxe benn tànk da ngay doxe benn tànk et y a une des conventions yu ñu signé nit bu fi ñëwee dëkk bi ne nii man nit bu amul carte de séjour déli la ci man xam nga ne loolu tamit kenn mënu ci dara dëkk jee moom ay luwaawam y a une chose nag te ñu ngi ciy remercier président de la république nee na bépp sénégalais fu mu mën a nekk dans le monde entier du nangu mu tumuranke wala ñu koy toroxal donc même sénégalais yi xamante ne ñëw nañu France wala ñëw nañu Espagne wala ñëw nañu beneen dëkk te amuñu ay këyit du nanguñu trop toroxal leen donc pour histoire euh, reconduite à la frontière en sénégalais qui est interpellé wala n'importe quel individu qui est interpellé ñu xool ci moom gis ne li muy joxe wala li muy li mu wax nee na moom dëkkam sénégalais la ñun bu ñu indilee sénégalais dañ ko war a protéger. donc bu ñuy auditionné nit yi ñu waxtaan ak ñoom xool bu fekkee waa ji sénégalais la parce que audition yi tubaab bi lim ñuy laaj waxuñu dañu leen di yóbbu seen dëkk tubaab bi dañuy laaj ki ma indi nii dama bëgg xam ndax sénégalais la du sénégalais donc tubaab bi bu ñu ko indilee ñun ñu waxtaan ak moom xam ndax sénégalais wala du sénégalais bu nekkee sénégalais on est en droit de protéger l'individu nan nga koy protéger. maanaam mooy bu fekkoon ne euh, mu ngi ci centre de rétention yi ñu leen di bunduxatal wala di leen di maltraiter wala di def loo xamante ne mën nañ saisir autorité de telle sorte ñu yor leen nu mun naa parce que xam nga dëkk boo ci ñëwee mu am délit nga def délit parce que délit bi ñu leen jàppee mooy amuñu kayit ndax fii délit la. peut-être maanaam beneen dëkk bu ne législation nekkul noonu mën na bañ a nekk délit waaye fii nee nañ boo amulee kii délit la donc bu ñu la jàppee aussi ba yóbbu la si centre de rétention yi xam nga yow rëyuloo nit sàcculoo defuloo dara donc war nañ la mën a traiter normalement donc ñun lu ñu mënte def pour que sénégalais yooyu ñu traité leen normalement bu fekkee sénégalais lañu dañ koy def accompagner leen ni mu war a waree jàppale leen ba vraiment bu ñu leen waree yóbbu ñu yóbbu leen bu ñu leen waree défendre aussi ñu toog ñu toog parce que ce n'est pas aussi euh, il y a des moments nit ñu jàpp la yoruloo sa kayit. wala yaa ngi si en procédure euh, ñu war la régulariser yooyu yëpp dañuy saisir préfet bi wala saisir ñi ñu war a saisir wax leen ah c'est vrai que seen dëkk nee ngeen loi bi nii la waaye kii de defe naa dossier wu war ngeen ko mën a xoolaat ndax am na loi bi lu mu ko permettre de telle sorte que mu war a mën a nekk ci yoon donc ñun vraiment nekk fi rek di accompagner Sénégalais yi di leen jàppale. loolu lañ fi nekkee reconduite nag à la frontière kooku loi internationale la tubaab bi bu la jàppee ah yoruloo kayit mu yónnee la mu yónnee la fa sa dëkk kooku kenn mënu ci dara c'est la législation française mais dañu ne am étage euh, nekk clandestin euh, Barbès moo gën a am étage Thiaroye mbaa du ngeen signé exactement euh, sauf conduite. signé exactement. pour ñu delloo nit ki Sénégal. Euh, monsieur mu ngi mel nii rek tey euh, nga ñëw soxla suuf conduit pour voyager Sénégal kan moo la ko war a signal parce que li ma la expliqué au début mooy sénégalais bu soxla kayitu administratif ici passeport xam nga boo soxla wi titre de séjour ñu war la ko defal sa passeport da ngay ñëw sa consulat mu signal la ko. xam nga loolu c'est normal donc tamit bu ñu indee fii sénégalais amul kayit. ñu ne reconnaître preuve yi ñu wax yépp wane que sénégalais la sénégalais boobu bu soxlawee sauf conduit dañ ko ko war a jox loolu rek la waaye du suñu coobare di jël sénégalais yi di leen yónnee sénégalais bu fi bëgg a toog dañuy xool nuñ koy mën a jàppale légalement vraiment dans la dignité humaine ñu xool nu mu mën a toogee ci toogaay bu rafet loolu mooy rôle consulat. d' accord merci beaucoup léegi nag dañuy wax si mouvement des femmes euh, du parti démocratique sénégalais à Paris xam ngeen nii euh, dafa am ay tolof tolof yu amoon si parti bi temps yale euh, passé léegi nag def na jàmm am na si parti bi affaire bi nan la demee parce que dafa mel na dafa am ñaari boor boor bi nga xam ne dafa ànd ak Amadou Siré Sall beneen boor bi Atia Aw am na madame Mbacké boo xam ni dafa bëgg a fël am na ay mouvement yi nga xam ni ñu ngi si parti bi du mel na arc en luy parti démocratique sénégalais surtout fédération de Paris. waaw xam nga fédération de Paris nag dafa di fédération bu yàgg ndax mooy fédération bi moom la ñu njëkk sanc ci extérieur te ki ko sanc euh, question bi daf ma kii sax parce que sama pap la ku ñuy wax ba dara Niang bokk ci ñi xamante ne ñoo sos parti démocratique sénégalais moom ak président de la république donc boo gisee euh, politique du ñàkk. mu am ay problème de personne on le voit partout fépp lañ koy gisee au niveau international au niveau national euh, et ça c'est tout à fait normal c'est tout à fait normal tolof tolof yi amoon nag xam nga euh, entre góor ak jigéen surtout ñun entre Haalpulaar rek xam nga promotion président de la république dafa def daf ñu sagal ñun jigéen yi def promotion de la femme donc promotion de la femme boobu xam nga des fois de temps en temps peut-être mu gêné am ñu mu gêné mais vraiment je ne pense pas xalaat naa ni man si sama xalaat parti bi amul problème problème bu mën a am nag peut-être euh, problème nit rek la problème nit la te nit nag ñëw ci parti am ci yenn ambition boo xamante ne du ambition parti bi xalaat naa ni peut-être man nga aussi xalaat feeñ ci fës pour li la indi nga man ko am waaye boo xalaatee intérêt parti bi am na yenn comportement yoo xamante ne waruloo ko mën a am waaye xalaat naa ne parti de fédération euh, de France euh, bu parti démocratique sénégalais tey la gën a dëgër tey la gën a mën a am parce que comme di manu ñàkk ngeen am ay problème mais ni ñu koy waxee toujours le linge sale se lave en famille boo leen déggoowulee ngeen toog ngeen waxtaan def li ngeen wax li ngeen war a wax li ngeen fi ngeen déggoowul ngeen trouvé ci solution et loolu la ñu def il quelque a quelques jours avec nos responsables du parti ba yàlla def ci sutura fi ma réeroon ñu wan ma fa fi keneen reeroon aussi ñu won ko le droit chemin de tell sorte que ñu mën a liggéey comme ni ñu liggéeyee depuis des années parce que comme ni ma la ko waxee moom la ñu njëkk a sanc ci fédération extérieure yi ba yàlla tey ni mu ko indee ba fii man sama papa sanc ko ba man ma doom tey nekk doomam nekk ci fédération bi ñu mën a continuer ñun tamit suñu yeneeni doomaati doom mën a continuer liggéey bi. loolu mooy wane ne jamono ñëw na ci parti xalaat naa ni jàmm ma su si jóge loolu moo tax ma ne la. problème amoon na ay tolof tolof. tolof tolof mënu ci ñàkk te du ci ñàkk encore mm. parce que problème de personne ah nit yi parce que c'est un parti qui nit yi dañuy ñëw te nit ku ñëw peut-être dafay bëgg fës bëgg nit yi gis ma euh, peut-être am na lu mu ciy séentu tamit donc euh, loolu mënu ci ñàkk mais nit ku nekk looloo tax ma ne bu ñu waxtaanee rek toog ñun ñëpp autour d'une table xool intérêt parti bi du ñu mën a réeroo. lu tax yu ngeen organiser dara si Paris rek day am ay problème problème organisation bu ñu xoolee bu président di am prix Houphouët-Boigny am na euh, problème d'organisation bu bëri bëri beaucoup de problèmes euh, keroog da ngeen di def cocktail pour euh, place place Dauphine porte Dauphine mhm. am na encore ay problèmes yu rëy rëy rëy yu du jeex luy indi loolu exactement. ah man yaa ngi may wax problème yoo xamante ne peut-être man gisuma ko parce que xam nga li nga wax ce qui est important dans la vie boo amee chance am kilifa dëkk. boo xamante ne c'est apprécié il est apprécié par waa dëkkam euh, waa dëkk euh, voisins yi par l'Afrique par l'Occident c'est normal que à chaque fois bu organiser quelque chose ñëpp bëgg a ñëw ñëpp bëgg ko gis ñëpp bëgg wan mbégte bi ñu am pour gis ko pour remercier ko ndax li muy def ci dëkk bi peut-être tolof tolof yi foofu la jóge parce que lu toll ni pavillon Dauphine mënu regrouper toute la communauté sénégalaise waaye baaxoon na tamit ñu organiser lu mel noonu pour que Afrique ak Sénégal ak Fra euh, waa France ñi ko bëggoon gis ne serait-ce que pour sargal ko moom mu tamit bëgguñu remercier ñu mën a ut endroit boo xamante ne dinañ ci mën a waxtaan dinañ ci mën a vraiment wane sunu mbégte tout simplement donc peut-être tolof tolof yi foofu la rek ndax contentement bu metti bi ñu koy bi ñu ci am pour gis ko moo tax peut-être par moment mu am ay débordement gañe ngeen présidentielle euh, Abdoulaye Wade mooy président de la République du Sénégal pour cinq ans dootul ñëwaat euh, y a un problème de dauphinat qui va se poser euh, bu dul loolu ci ci la ñu jëm xam nga législative benn député le Sénégalais de amoon te am na jigéen yi nga xam ne ñu ngi takku bu baax a baax pour législative yi te rañee lañ leen si parti bi ndax législative yii di ñëw du am jigéen ba nga xam ni mooy ànd ak Amadou Siré Sall ak keneen. yàlla rek moo xam ndax président du ñëwaat am du ñëwaat. yaa ko wax waaye man waxuma ko yàlla rek moo ko mën a wax. mais xam naa du ñëwaat. man maa ngi koy ñaanal yàlla may ko cinq ans yi may ko wér gu yaram may ko gudd fan bu mu mën a ñëwaat dolliwaat yeneen cinq ans man de ñang baa da ngay wax président dolli ñu. man dolli ñu rek moom laa koy ñaanal euh, euh, li li euh, en ce qui concerne li jëm ci élection législative yi. man sama ambition du benn député des Sénégalais de l'extérieur ndax tey diaspora bi li muy apporter li muy apporter ci Sénégal nekk na loo xamante ne lu diis la bu ñu ko doon chiffrer tey xalaat naa ni euh, dépassé na yenn montant yi donc euh, yàlla def nañu président en 2001 mu sagal ñu xam lii diaspora bi di am may ñu benn député ci liste nationale PDS muy Amadou Siré Sall ñu ngi koy remercier président nag wax na lu am solo. nee na man sama liste parité laa ciy def benn góor benn jigéen benn góor benn jigéen moom moo xam bu xalaatee ne sénégalais de l'extérieur war nañu mën a am ñaari député ñun jigéen ñi xam nañ ni bokk nañ ci ndax fu benn góor amee benn jigéen dina am et indépendament de ça aussi mu ñuy sargal ci yeneen la première la la la la le poste que j'occupe c'est la première fois qu'on nomme une vice-consul femme et yooyu yëpp ci sargal jigéen la donc awma ci benn doute que vraiment li mu war a defal jigéenu Sénégal dina ko defaral ndax defal na ko jigéenu Afrique ndax Union africaine moom moo fa imposer parité et je ne awma ci benn euh, xalaat bu ñaaw que vraiment jigéen ñi bu ñu waree am dara Euh, dans ce qui concerne les députations wala en ce qui concerne euh, le Sénat ou autre que dinañ ko war a mën a am et à pas oublier également que nous ne sommes pas des circonscriptions parce que lu ñu am rek moo ñu ko may def ko ci liste nationale am voilà te ñu ngi ko ciy remercier. mais du mu du mu ñàkk delloo si Dauphina bi. yow boo fermer ses yeux nii nga def nii koy gis yaa am na Macky Sall am na Idrissa Seck am na Karim am na Sourang am na Seck Tidiane Gadio yaa ngi waxaat tamit góor gi dolli dolli ñu koy gis ba dëggantaan. man bu ma fermer les yeux ouvrir ko rek. président de la république maître Abdoulaye Wade laay gis. en conclusion looy wax. ah maa ngi li remercier di remercier toute la communauté sénégal di remercier seen initiative bi parce que depuis quelque temps bu ma ubbee internet gis leen euh, wala gis aussi promotion langue nationale yi que ça soit le pulaar wala la wolof ou le mandeng ay autres yéen aussi yéenay jaay Sénégal te lii lu important la donc man yéen laay njëkk remercier euh, parce que boo ne Euh, nit ki xamul bu baax exactement sa politique wala sa culture nu mu demee yéen ngeen war a nekk fii di di di di di jaay comme on di culture sénégalaise bi di jaay polit li li Sénégal di def di ko wone ak justice maa ngi leen di si remercier di remercier également aussi jigéenu Sénégal parce que xam naa ni jigéenu Sénégal takku nañu takku nañu pour liggéey dëkk bi di remercier xale yi aussi di remercier góor yi di remercier plus particulièrement également le chef de l'État maître Abdoulaye Wade président de la République mi xamante ne tey quand on voit euh, lii xew Sénégal li Sénégal mettre en place toutes ces euh, villages yi xamante ne yëpp ñu ngi koy électrifier wala programme yi ñu euh, initier yëpp fii à notre niveau te mu ñu ciy jàppale pour ñu koy kii yàlla may ñu rek jàmm salaam si dëkk boobu si dëkk bi suñu dëkk Sénégal pour que ñu mën a continuer ba Sénégal nekk euh, pays émergent euh, wasalaam. Ciao. Merci. C'est moi qui vous remercie. jërëjëf.